yaa la ilaha illallah la ilaha illallah

ki nee na asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu nee ñun bokki jullit yi fi teew di njabootu Serigne Touba njabootu Cheikh Ibrahima Fall nee mi ngi jottali kàddu yu nuyoo yoo xam ni mi ngi bàyyi ko ci sunu sang bu tedd bii ci biir muy Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbenda di maam seex Ibrahima Fall nee cant gi nag kàddu gi da koo joxoon jëwriñam ja sëriñ Cheikh Fall Ndiaye Mbeng waaye moom nag dafa agseegul mu yónnee woon ndaw xam le ni nag ginnaaw sëriñ Cheikh Mbacke ngi fi na jottale kàddu gi ci mbooloo mi ñëpp dégg ko sëriñ Cheikh Fall nag. moo ko joxaat kàddu gi mu di ko jottali moom nee kon kàddu yii muy wax kaddu yu Serigne Cheikh Ndiaye Mbeng la bokk mu jële ko ci jëwriñ ji maam Cheikh Ibrahima Fall Serigne Amdi di Modou Mbenda nee sëriñ baa ngi nuyu murit yépp nag yu góor yi ak yu jigéen yi di leen sant di leen gërëm bu baax ne du ñu gën a jaajëfal ci liggéey bi xam ni moom nit bu amul lu dul lenn da ko war a jàpp bu baax ca ñun amuñu lu may baatum ndigal bi mooy sunu julli mooy sunu woor mooy sunu tey mooy sunu ëllëg kon nee ni lu ko jàppee ñeen ñi ngi ciy soññ ñëpp nan ko gën a dollee jàpp bu baax a baax boole ci ab yar bu ànd ak i teggin ak sellal rek. nee daane si leen wax ni dee leen wut lu mel ni ay sarbet di ko ŋàbbaale ci liggéey bi ngir ñaq wi nga xam ni mooy ne ci yaram yi soo yenn koo ndab mu toq ca ndab la ka koy gis mën naa am du rafet ci moom waaye bu ñu yoree ay sarbet nag waaye ku ci ñaq fomp mën naa bañ a toq ci ndab li ndab li itam sëñ baa ngi doolu nag di soññi soxna yi di leen sant di leen gërëm ci sellal gi ak defar gi ak matal gi ndax nee na doy leen kat am ci yéen yaakaar moo waral ndab yii bu fi ñëwee kenn du ko seet ndax kat nee dañ ko daan xool ba xam ndax ndab lii fees na wala feesul waaye léegi nag kenn ku ne xam na ni ndab li moom li ciy dem su ko mënoon a ëpp dina ko ëpp waaye fees rek a tax ñu bàyyi ko nii mu mel ndab li ku kenn koo xam ne mën a koo yen sa bopp xam nga ni dara ma ngi ci biir ndab li ca la ca nekk yaa ko ci def te yaa ko moom jëf ci moom nee du jaawaloo mukk kenn ku ne yaa moom sa jëf benn benn genn ginaar itam. ku defoon ci sa ndab genn ginaar itam. yaa moom loola rek. ku ko duy ba mu fees it. yaa loola rek. moo tax kenn seetatul ndab yi. kon ndab yi nee nay fees rek. te xam ni ñoo ko moom de. fa mu jëm. ñun la fa jëmal. kon nan koy sellal bu baax. sëñ baa ngi sant ñëpp nag de. dellu di leen gën a ñaanal bu baax a baax. liggéeyu maam Cheikh Ibra Fall bii ngeen nekk. ca tàmbali ko démb. nee mi ngi doon ñaan ñu dugg ci bisimilah rahmaani rahim. génn ci ak alhamdulilahi rabil alamina. am ci ngërëmal Serigne Ibra Fall. saa gën a guddal suñuy fan nag. te wéral suñu yaram. ca dolli suñu kartan yokk suñuy wërsëg. dolli suñuy xéewal. ba sëriñ bi bëgg lépp ñu man ko faal te yàgg koo jëfal Seex Falilu nee na suñ jàngoro ji ñun ñu teew ñëpp ñoo bokk ñenn jàngoro ji nu dal murid yi nag li ci ëpp seen wopp mooy lii Seex Ibra Faal bëgg nga bokk ci ñu ko mënul nee lool rek moo nuy metti waaye lii Seex Ibra Faal bëgg murid bu ko man dara mettitul murid booba am na lam bëggoon kon li sëriñ bi bëgg yal nan ko man murit yi te yàgg koo sëriñ bi lool nee ñi ngi sant ñëpp nag sëriñ Cheikh Fall a ngi ni teew muy sëriñ Cheikh Mbacke Fall ak sëriñ Ablaye Fall ñu ko wax sëriñ Abdou Louga ñëw ba noppi teewal fi sax jëwriñ ji teewal fi maam Cheikh Ibrahima Fall nee mu sant murit yëpp nag gërëm murit yëpp kon nee na ndigal laa ngoog lan leen daan wax rek. nee na jekk rafet jëm njaareem ak Touba nee yar bi daal moom loolu daal moo jaaxal sëriñ bi nee buñ ci doyal de yéen ñi demoon démb muy sëñ Ablaye Fall Ndar mi demoon njaareem ak Cheikh Moustapha Fall mi demoon Touba indi nañ fi seenu cant ak seen i ngërëm ci sellal goo xam ni sellal ngeen ko liggéey bi ak yar bu ngeen ci boole. waaye loola kat murid bi buñ ko buñ ko ci fenn ndax loola sunu alal la ak taalibe soo ko amee te amoo ab yar bu ànd ak teggin taalibe ga du neex a gis nee léeg-léeg nga gis ko am yar boo xam ni fan koy dëkkale dëkku fa de yar baa ko fa yóbbu rek kon yar bi ak teggin nan ko ca boole te nag dool lee nag gën a yéenante jàmm ndax yéene daa am doole loo yéene sa moromam jaam Cheikh Falilou neen yaa ko ci ëppale weer wii ñu nekk nag weeru ngërëm la weeru mucc la weeru xéwal la weeru jàmm la te sa borom kat xamal na jullit yépp ni leen weer wii bu ñëwee seytaane moom da koy tënk. nga xam ni dootul mën a génn di yàq dara. waaye kon nun nag. nan fexe ba fan ko tënk moom seytaane. buñ ko fa fekki mukk buñ ko fa fekkul rek. duñu mënal dara. loola nag mooy. sax ci ak jub. wattandi ko ak tooñ. tey jéggalante bu baax. tey ànd ngir yàlla rek. kon nee jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf. nii ngeen nii ngeen mel. fi ne ku leen dina xam ne ay murit a ngi nii am murit moom ca koddu ma ca nga koy njëkk a xamee su woddoo ba ñëw soo ko séenee xam ne am murit a nga nee bu agsee ba nuyoo mu feeñ ca nuyoo ba su toogee mu feeñ ca jataay ba kon nee na lu yàq loola wala lu koy ñaawal nan koy wattandiku kenn ku ci sol yére yi nii moomale tubaab bi ñu naan ko yére tubaab nee na yéen dey bu leen bokk mukk ci ñu koy sol di ñëw fii ba noppi di ko yor di yóbbu liggéey Cheikh faal bi nee ku ko mën a bàyyi muy pantalon na ko bàyyi soo ko mënta bàyyi booy ñëw ci ndigal lii bu ko sol indaale ko fii ndax kat sa tuba yi noon boo ko séenee ci sa tànk xarit war ngaa ñaaw njortu ca tubaab bi kat mooy noonu Serigne Touba. kon kuy sol tubaab yooya. yaa ngi sol tubaab yi tànk noonu Serigne Touba kon nañ leen wut koddum Serigne Touba mi. ak koddu maam jaara bu somi loolu mooy sunum koddu ñun murit yi ne ñun góor ñi ku ko ci mëntu ñàkk sol loolee ñuy wax dem tool bul ko ci weesu ab rëbb bu demee ba ca àll ba su bëggee jàpp ci rab ya day lamasu am ngeer day lamasu am ngeer wala am rat ngir rab yi bu ko séenee ngir rab yi buñ ko séenee di ko jaawale ak garab yi ba ñime ba ñime ko lool man man koo jege. man koo jege. mu mën a jàpp ca rab ya. mu mën a jàpp ca ya. wala baa mu fital ca. waaye bu ca amee moom ba ñibbi moom. bu demoon la mu jàppoon. da ko jox waa kër gi ñu defar ko. moom nag mu summi ko ba set. sol yére kër ga. yére kër ga nag. mooy yére sëñ bi rek gaañi. mooy yi ngeen sol nag gaañi. koo xam ne mënoo ñàkk sol pantalon. na yem ca tool yi muy liggéey ba. waaye fii ci kër Cheikh Rafaal gi ñuy liggéey la sëñ Touba. na sol yére sëriñ bi loolu la sëñ bi digle. ndax kenn du la ko moomale nag. dan naan tubéy tubaab nga sol. nee loolu nag ëpp naa def. te ñun ñii itam. jéem nag. di wax sunu bàyyi bàyyi baa sëñ bi baa sama ndey baa sama yaay baa soxna si waaye tubaab bi day bari na ñum yóbbaale koo ni sa baay sax mu defe ne loola aw saaga la papa lan xam te papa nag tubaab moo koy wooye baayam te yéen du ngeen ay tubaab seen bàyyi dunu ay tubaab dee leen wax baay baa ngi di wax sëriñ bi loolu mooy waxi lislaam waaye papa ak tanta ak mère loolu ay tubaab ko moom gaañi dëkkul kër Cheikh Rafaal na ni wax yaay baa soxna si baa sëñ bi baa sama baay kon nag ñee jërë ngeen jëf neen mi ngi maase nag moom mi sëriñ Falilou di baalu àq ñëpp waaye nag di baalu àq ñëpp it nag saa mi ngi koy ñaan mu boolu ñu jéggal ñun ñëpp ci daraje Cheikh Moustapha Fall mi ci biir dimaam maam Cheikh Ibrahima Fall nekkoon na jërë ngeen jëf kon sëñ Cheikh kaddu yaa ngoog fa la ilaha فلا إله إلا الله فلا إله la ilaha illallah ci nguuru yàlla ji Sidi Ibrahima Fall aka bëri doole ci nguuru yàlla ji la la la la ilaha la la la la la